الرحمن الله هو المنان لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد is the messenger الله asalaamaaleykum mbokk yi ñoo seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen ziare ci suñ programme bi nga xam ne moo di koor gi ak kër gi muy ci biir programme bi nga xam ne nag nañ ciy waxtaanee yenn jafe-jafe yi nga xam ne seetlu nañ ne mu ñoo dal ci suñ biir kër yi ci jamonoy weeru koor wi eh, dina ñuy def ay waxtaan yoo xam ne nañ ciy seet xalaati nit ñi ko defee ñu indi ko ci programme bi dinañuy amit théâtre bu gàtt boo xam ne dafa dëppoo ak li nga xam ne moom lañoo waxtaanee ñu indi leen ko yëpp ci biir koor gi ak kër gi bu ko defee nag ñu dal di fi indi ay nit ñoo xam ne ñoom itamit eh, dinañ mun a waxtaane ñun eh, ci wàlli diina gi ak ci wàlli ñi nga xam ne ñoom ñu ngi taxaw mbiri kër gi loolu moo tax nag tey ñu amal leen fi ki nga xam ne moo di imam Cheikh Tidiane Thiam eh, nekk imam ci Banjulinding Med Camp mosque bi am eh, fi aji ndey faal kinte moom nag du fi gan léeg di ngeen koy faral jamono bu ci nekk di ko gis ci suñ programme yi ñu ne neen la muy koo xam ne moom it eh, kilifa la way jur la eh, ñu ne ñu indi leen dajale leen nag lay suñ programme bi waaye nag balaa ñoo indi waxtaan yooyu rek ñu ànd ak roxi bi tey Ah, bentey rek mbokk yi dañ ne koor gi ak kër gi suñ ne koor gi ak kër gi duñ mun a dem nag te seet si ñi nga xam ne ñoo amee kër gi mooy jigéen ñi ak seen wàllu togg ci ndogu yi nga xam ne moom lañ faral di def ci weeru koor wi moo tax nag lu ñu def rek mooy seet si ñi nga xam ne ñoo nekk si seen biir wàññi ñu seede lu ñu amal tey ci wàllu ndogu lekk ñam yi nga xam ne moom lañ fas yéene togg ci bés bi toppaleen ma xool ñu seet liñ fiy jëlee. yow buy tur bi man may Juuf laa tudd Euh, mais ñu ngi la fekk si sa biir waañ dafa mel ni fi mu nekk nii yaa ngi doo a jógee marché ñëw di ebbi sa nduga. waaw waaw maa ngi door a jógee marché nii léegi laa jógee marché waaw. loo fas yéene tey togg ci ndog li. Ah, tey maa ngi fas yéene pour tooga soosi marina ma tooga benn ci benn ci ne yàppa bu weex ma jënd sausage pour toogal ko ah, yëpp nga fas yéene def tey ci bés bi waaw ci bés bi tey loolu laa fas yéene pour def. Mm-hmm. ndax li ngay togga nii yëpp maanaam ñetti togga yi nga lim yoone jëm di ngeen ko mën a lekk ci benn bis bi tey waaw dañ ko dee mën a lekk hmm. <laughs> waaw suñu euh, dogoo ba pare hmm. ñu dem naafila suñ naafila ba pare ñu lekk benn bu ci des lu ci des ñu xidee ko hmm. waaw dañ ko dee jeexal dama dee toggale em rek nga xam ne mun nañ koo jeexal duñ tur lekka dañ tour lekka nu gisee comme ñi nga xamne di dañ ñaare dañ dee tooga paring yu bari dal di jël su pare ñu tour ko ci ñami bammi wala sax ñu jël lekk bi sanni ko nonu muy yàq bu xamne ne bu am bu am amul lolu baxut baaxut toga toga lu em li nga xamne mo ngeen koo jeexal waaye nga lu bari dem ñu ko tour ci ñami bam lolu baxut lolu baxut bu desee sax mën nga ko jël nga jox ko ñi nga ñu ne ñooñu mënuñ koo afoot jël lek nga lek ko bi toga bem bari jël di def ñami bam lolu warut loolu baaxut loolu moo baaxut dara. mbokk yi dégg nañ li nga xam ne noonu la moom la Yamé Diouf wax muy lu am solo euh, muy nag muy waajal fi mu nekk nii toggandogu ni ñuy def rek mooy dugg feneen seeti leen beneen kër ñoom tamit nu ñuy li nga xam ne mooy ndogu tey ci man maa ngi tudd Janga Jang tey benn cin suma gan bi dama am gani Sénégalais mooy tooga tey benn cin hmm. léegi man may tooga si ndogu fry fish nag hmm. waaw si loolu lañ nekk weeru koor bi moom lu nekk seer loolu laal rek dafa seer. soo demee marché lu nekk dafa seer fan yi jën amut ganaar yokka nañ ko lifin lu nekk daal yokka nañ ko lu nekkaa seer daal si marché bi soo demee dangaa lii ba soona wuraaru kóob ba soona lu nekkaa seer lu nekk lañ yokka baax na jërëjëf waaye ñu ngi sant yàlla comme que nañ ko at bi mm-hmm. nañ ko fekkee at yu baree bare sista tur bi Aysatu Aysatu baax ay surtout ñu la fekk si sa biir waañ ngay togga ndogu ala nga fas yéene togga tey ci bes bi. tey fry lay togga. fry fish lay tooga tey. te fry fish rek nga fas yéene tooga ci bés bi. waaw maalo amut. maalo am na kay. ok fried fish ak lan. ak domoda. ak domoda. Ah, tey daal loolu nga fas yéene tooga ci bés bi. waaw ay surtout dañ nekk ci weeru koor um, ñu gis ne ñu jigéen ñi si la ñu faral di tooga lekk yu bari um, ñaare soo demee si marché bi loo xeymem rek ne tey dinaa ko tooga uh, ñaare nga tooga lekk yu bari bari lool torop uh, ba si bés bi sax doo leen ko jeexal daxa uh, nga gisee loolu ay surtout. loolu yaaxa loolu suñ ko defee loolu yaaxale dañoo def toogal lu am loo xam ne suñ ko lekkee dafa jeex. Ousmane Ousmane Cissé. Ousmane Cissé. Ah. foog naa ñu ngi ci weeru koor ab Cissé Koundangana xam naa di nga taamu ah, lekka bu bari lool ci wàllu weeru koor bi waaye noo gisee comme togg yu bari yi nga xam ne ñu ngi koy def ci wàllu weeru koor bi. waaw gannaaw bu ñu sant yàlla julli si yonente bi mhm. waaw tooga yi alhamdulilah daf ñu mën a dimbale suñu bëri. or bi ñu dee xala sonal waaye lekka yi tamit duñ ko dee mën a lekka yëpp mm. ah. bi moo dee dee si biir bi rek mm-hmm. ah. lekk yu bari doo ko dee mën a lekka ah. noo gisee ñi nga xam ne jigéen ñi suñu yaay exemple dañ dee dem ci marché bi jënd lu bari bari fas yéene koo nag def si wàllu ndogu bi ñaare comme ni nga ko waxee rek yéen doo leen too dee mën a jeexal ndax nga gisee loolu foog loolu ne yàq la la non anyway du dee nekk yaakaar tamit daf day nekk loo loolu la gars yi séntu ne loolu loolu la nit yi mun a lekk daal si bés bi waaw so ñoom loolu la loolu la gars yi gis na loolu su ko gars yi defee dina doy nit yi waaye unfortunately moom weeru koor moom waaw lu dee pare pour lu lekk yëpp doo ko dee mun a jeexal Ah, kon nag mbokk yi loolu noonu ñoo ko déggandoor ki ñu mujjee am rek muy ab Serekunda boo xam ne ah, ku bëgg a lekk la loolu mu doon wax rek li nga xam ne mooy lekk yu bari yi ah, nga xam ne moom la jigéen ñi di faral di togg ba lañ koo togg rek li nga xam ne moom lañ si def fas yéene mooy jeexal ko ci bés bi waaye mbokk yi loolu seen gis-gis la woon ci xam ne mooy togg yu bari yi nga xam ne dañ koy def ci weeru koor bi si waxtaanee koor gi ak kër gi nu ñuy def rek mooy delloo kàddu gi anti ayda foofu si studio bi ñu eggalee waxtaan wi ci koor gi ak kër gi jërëjëf Roxi eh, ci waxtaan yooyu nga xam ne jëmale nga ko ci li nga xam ne moom lañ fas yéene waxtaanee tey loolu moo di eh, dajale ñam yu bari yi nga xam ne eh, gis nañ ne dinañ koy def ci biir weeri koor wi yëpp nag xamuñ xememteef la xamuñ nimse la eh, muy ay mbir yu bari yoo xam ne dina ñuy sonnal ñu di ko dajale te léegi léeg nag du ñoo mën a jëfandikoo yëpp ñu ngi laa gërëm bu baax a baax nag ci waxtaan woowu léegi nag ñu indil leen li nga xam ne moo di théâtre bi ñu ànd ci ak waa góob gar yëpp de. ah xale yi ndax